ko ñu ci war a dox daal ciy dox ñu ubbi ci enquête te loolu ñu ngi koy ñaan tey jii ñi nga xamante ni ñoo ŋànk réew mi mhm. en plus particulier mhm. Euh, son excellence le, président Bassirou Diomaye Faye mmh. le chef suprême des armées qui le premier militaire de euh, sénégalais mhm. mu mu mu taxaw ci fexe ubbi ay enquête mais naka naka ngeen mën a comprendre noppi gi nga xam ni tey jii euh, tey euh, armée wala gendarmerie Moussa Fall xëy na euh, noppi woon na ko ci ci ci yëf yi. waaw ndax man mooy li may wax rek duma ma joxoñ kenn duma indexse indexé kenn. Mhm. ndax tey su ma fi taxawee su may wax ci waxu Fulbert damay wax waxu Fulbert en tant que. frères d'armes. Mhm. ndax xam nga ñu tout le monde se posait la question pourquoi yenn commune euh, maanaam euh, communiqué woon ci neen yi comme si ni ko Sénégalais yi euh, doon xaare ba pare mu nekkoon koo xam ne en tout cas dafa dafa servir sa nation nekk nekkoon gendarme en activité est-ce que jàpp woon ni tamit yelloon na xëy na ñu bind ci jenn communiqué wax ak Sénégalais yi. non waroon nañ ci def communiqué wax ak Sénégalais yi ndax comme ni ma la ko waxee. surtout koo xamante ni dafa porte volontaire à part communiqué boobu euh, disparition bi ñu ci wax. waaw yaakaar naa que ni à part communiqué boobu. ba léegi amul leneen ñu ci waxaat amul keneen ku ci wax. Mhm. même bu fekkee ne am na lu luñ ciy def ci suuf nañ ko def ci kaw mu daal di leer ci nopp sénégalais yëpp. da daa am def ci suuf. no dama ni bu fekkee am na. Mhm. bu fekkee am na lu luñ ciy def ci suuf. Mhm. ndax wóoruma ndax depuis deux mille vingt deux ba léegi. loolu ñu ci déggoon. Mhm. nañu dafa lab ba léegi déggaatuñ ci dara te foog naa ni koo xamante ni. il mhm. s'est porté volontaire pour servir sa nation. Mhm. ba tey yàlla def ba mu doon un sous-officier un sous-officier de l'armée sénégalaise kon tey bu fi jógee war nañu mën a taxaw topp mbir mi xam nan la ak naka la leeral ko ci àdduna ba ñëpp daal di xam tey jii diw mi kat bi di fil feu sergent Jules Lève Sambou lan moo ko fi jëlee. ñun loolu lañu bëgg te loolu la ñuy ñaan suñuy autorité euh, tey tey ci ci côté boobu sax parce que tey ku ci mel na yéen eh, ñi nga xam ne ñi ngi ci biir armée eh, doon servir seen nation tey bu ñu fi jógee eh, génne àdduna wala ñu retraité war a génn surtout ñu yore yenn ndombay yi dañuy gis que ni leen di defal li nga xam ni moom moo di seen ay dernier hommage tey kaaw Fulbert Sambou ak DJ Badji yow naka nga jàngate seen kaa bi nga xam ni en tout cas ñu bari ñu ngi jàpp ni xëy na ci côté boobu noonu xaw na des. waaw xaw na des ndax man mooy li may wax rek man xawma DJ Badji mm-hmm. franchement parler xawma DJ mm-hmm. mais ñoom ñaar la ñu wax ni ñoom ñoom ñaar la ñu wax mais tey par exemple Fulbert bi waaw Fulbert comme ni nga wax nii yooyu yëpp war lu war a mën a am la mais li ci jiitu mm-hmm. foog naa ni avant loolu avant ngay rendre honneur wala quelque chose comme ça war nga mën a élucider nit ki ñu xam nit ki tey lan moo ko fi jëlee nga ko fi jëlee waaw lan moo ko fi jëlee ñu xam si ma Massamba qui a fait ou Mademba qui a bu boobaa yoon daal di jël li mu war a def muy la justice on a confiance à la justice de notre pays. Mhm. ñu def li ñu war a def. en ce foofu la ñu war a mën a waxee ay honneur ak quelque chose comme ça lu ñu war a rendre nit ki ndax xamuloo lan moo fi jëlee nit ki ba pare. Mhm. nga bëgg ko rendre honneur. day loolu moom day xaw a. loolu dafay dafay xaw a këll gauche quoi. Mm-hmm. waaw franchement parler. d' accord da ngeen jàpp ni daal fi mu ne il faut que ñu euh, amal li nga xam ni moom mooy euh, justice ba pare euh, su ko defee bu ñu koy bu ñu leen di rendre honneur ñu doog ñu soog koy def. waaw loolu mooy yoon ñu rendre ñu justice éclairer ko mbir mi. daal di leer est ce que jàpp ngeen yëf yi dina yomb ak fi mu toll jamono ji. non du yomb dina yàgg dina metti lu ne xaj na ci. lu ne xaj na ci saa lu lu ne xaj na ci ndax man mii sama wàllu bopp man mii wax. Mhm. tey jii xëy na tey boo xoolee am na lu jotoon jàll ci réseaux sociaux yi. Mhm. bi ma waxee ci Fulbert ñu bëri ñu ngi naan dañ ko yéex a def. mais toute chose à son temps. Mhm. lépp loo gis rek am na lu ko waral. te am na lu muy xaar. xëy na suñu borom fii la ko jaarale woon nii ci man lay jaar. pour ñu mën a toog wax ci kaawu Fulbert Sambou boo déggee ma ne la lu ne xaj na ci man Abakara Babacar Diouf. Mhm. matricule 09 98 00 653. ancien militaire de l'armée sénégalaise de la classe 1998. Mhm. man pare naa pour ñu leeral mbiru Fulbert ci ni mu mën a demee ak nu mu mën lu ma ci mënti fekk lu ma ci góobe man danaa ko gar. ndax mhm. pare naa ci te waxtaan naa ci ak ñi ma war a waxal muy samay kilifa. Mhm. sama sëriñ muy sëriñ ba Fall ma koy nuyu au passage. waaw lii dañ ci tàggu sa sëriñ ba pare avant nga ci dama ci tàggu sama sang ndax du def loo xamante ni sama sang yëgu ko. Mhm. ci waxtaan ak moom. te Sénégal yëpp sax ñoo bëgg mu daa doon loo xamante ni dafay leer mais su ma la déggee dafa mel ni dafa am ay enjeux yoo xam ni dafa nekk ci biir. danga am loo ci ragal ndax ay menaces euh, wala. non ragalu ma ci dara man je suis préparé pour tout. Mhm. dama pare ci lépp. ragalu màcc wala da nga njorte ay menaces yeneen yi mën na mën na ci am. ci nga nekk nii di ci dox pour ñu leeral. Oh, ragalu màcc dara ndax su fekkoon dafa am lu ma ciy ragal. du ma toog joxe suma matricule. Mhm. du ma toog ne man la diw. man la Babacar juuf ragalu ma ci dara tiitu ma ci dara awma ci arrière pensée mais li ma ci xalaat mooy que ni. Mhm. dañoo nekk ci dëkk bu nga xamante ni mbir day am. Mhm. pour ñu leeral ko day jël temps. te lu mel ni comme le cas de mhm. warul doon loo xamante ni dafa war a jël temps dañ ko war a jël en main ndax ku bàyyi léppam. Mhm. porté wu ne damay dem ma servir suma pays. Mhm. kon kooku tey jii deseelatul dara Sénégal Sénégal moo ko deseel. kon dañoo war a taxaw ci mbirum Fulbert mu daal di leer naññ. muy menace ak leneen ak leneen lu ci mënti am man pare naa pour endosser lépp ak ñi nga xamante ni ñoom laa àndal. muy ay classe am muy comme ñi nga xamante ni contingent quatre vingt dix mhm. ak contingent quatre vingt dix bu ñuy wax nag mhm. waxuñu ci ñi nga xamante ni tey jii c'est des classes de Fulbert nekk en activité ba léegi ndax ñëpp xam nañ ni l'armée c'est la grande muette ñoom dañ leen épargner ci lépp mhm. ñu mais est-ce tamit du ñàkk ñoo xam ni euh, danañu sàcc ci woole pour encourager la euh, ci li nga xam ne yaa ngi koy def nii non mënta ñàkk ku nekk ak may woo partout partout ba ñu nga xamante ni sax ñu ngi ci diaspora bi ndax ñun ñii tey contingent 90 am na ñoo xamante ni tey ñu ngi à l'étranger mm-hmm. ñoo ñëpp ku ci nekk danga may woo mm-hmm. di ma encouragé ci lii xëy na ñoom sori nañ mais tey buñ fi nekkoon dinañ jàpp dinañ ànd ak man ci combat bi te combat bi wéetuma ci dee xëy na man maay porteur de voix bi. Mhm. day sax am na sa beneen naataango boo xam ni waroon na ak xaaral moo lay woo noonu. moo may woo euh, waaw Dóor kaay ko téléphone bi nga wuyu ko parce que dafa war a ñëw rejoindre ñu ci ci ci plateau bi bu ko la woowee euh, nga euh, ci ci ci bi wala su la neexee def ko si comme ça door mi ngi ñëw wala Serigne Saliou mhm. jël ko man la man la wo voilà mi ngi noonu léegi danga nga koy defal ko ko signe su ko defee parce que daf ñu war a moom aussi ci li nga xam ni moom mooy plateau combat bi nga xam ni moom Abakara Ababacar Diouf daaj na koy porté pour rek ñu daal di indi euh, ay leeral euh, ci euh, disparition ki nga xam ni moom mooy Fulbert Sambou nekk seen classe 98 1 ak 98 2 ñooñu nag nekk ñi nga xam ni ñoom ñoo porté ce combat parce que dañu jàpp ni lii nag yëf yi dafa war a leer parce que ne peut pas comprendre dans un pays boo xam ni nee nañu yoon moom moo fi am quelqu'un comme Fulbert servir sa nation dignement ñu jekki jekki-jekki rek euh, ñu wax ka ni dafa daal di lab euh, ñu jël ko suul te ba tey euh, enquête yu mën a leeral yëf yi amu ci loolee la ñu ñoom mënut a comprendre sànq yaa ngi woon fu am solo mooy sa frère classe yi nga xam ne ñii ñi ngi ci bitim réew ñii ñi ngi feneen ak feneen tey ñi ngi lay woo ji la encouragé mais est-ce ci beneen côté bi tamit des fois doo jot ñeen ñoo xam ni ñi ngi lay jéem a encouragé wala ji la jéem wax yoo xam ni peut-être da nga naan ñii ils sont maanaam peut-être ànduñu ak ak yow ci li nga xam ni moom mooy sa gis-gis. non loolu moom amagul ba léegi. Mhm. amagul ndax man tamit am naa fulla ak fayda ak mat gu nga xamante ni je ne bàyyi kenn mu na ma. Mhm. surtout ci nga xamante ni ci laa lii laa nekk te lii xëy na d'une ñun ay classe la. Mhm. ñoo taxaw kii loolu te amul lenn benn civil boo xamante ni dax nga ñu suñu biir ba mën ñu wax lii walla lii. mais ñun ay classe ñoo taxaw temb. man ma jiite loolu ak suma classe bi nga xam moo fi war a teew léegi muy Lamine Sidibé ñu taxaw pour ñu leeralal ñu mbirum Fulbert mm-hmm. mais amul kenn koo xamante ni mës nga ma woo ne ma lii wala lii wala di ma jéem a découragé loo ci lii mm-hmm. ndax comme ni ma la ko waxee man doon naa ko nga xamante ni mm-hmm. lu ma visé tant que atteindre ma suma cible du ma bàyyi te bañu ma ci dara ragalu ci dara tiitu ci dara kon loolu moom amagul koo xamante ni mu ngi may woo naan ma lii ñi may woo ñëpp dañu ciy encouragé. Mhm. xëy na ñenn ñi sori nañ ñenn ñi man jot bi ma am ba mën a teew ci yenn kii ñoom amuñu ko ba man mi nga xamante ni man ba ma toogee ba toog gis euh, depuis deux mille vingt deux. Mhm. jusqu'à présent kenn waxatul ci kaawu Fulbert. man maa woo samay nit woo samay classe ñoo xamante ni on était ensemble dans l'armée mhm. ma ubbi benn groupe WhatsApp tuddee ko les amis de Fulbert justice pour Fulbert Sambou mhm. ñu fekk si ma ci buñ ma ci fekk see tamit boobu léegi ñu ngiy waxtaan ñun suñu biir mhm. man nag man maay porte voix bi mhm. amul kenn koo xamante ni rax nga ñu pour ñu ne lii wala lii ndax loolu duñ ko may sax kenn ak ku mu mënti doon ak martaba boo mënti am ak maqaama boo mënti am duñ la may loolu te loolu bu amoon tamit la personne la je vais les points sur les i ne ko boxlewuñ la suñu combat ndax su ñun la des anciens militaires. Mhm. kenn raxuñu ñun ñoo taxaw. comme ni ma ko waxee on des anciens militaires un militaire n'est jamais en retraite il se mhm. retire de la troupe on est militaire aujourd'hui et on le sera pour toujours mhm. kon duñu nangu kenn duñu rax bay am loo xamante ni da nga ñu ko ci wax luy naka sudul noonu kooku duñ ko may kenn te duñ ko nangul kenn te li ñuy xeex du ñun rek ñoo ko bëgg xëy na sénégalais yëpp ñoo ko bëgg amaana am na ñoo xamante ni mënuñu taxaw wax mais ñi ci kër gi ñoo fi nekkal ñi ci naaj bi ñi ci naaj bi nekkal fi ñi ci kër gi mhm. man mii nekk ci naaj bi nag am na ñoo xamante ne ñi ngi ci kër gi nekkal ma fa nekk sama ginnaaw di ma encouragé di ma yokk doole comme ni ma la ko waxee mhm. laata mooy soobu ci lii waxtaan naa ceeg samay mbokk waxtaan teeg su ma sang mhm. tey ba Fall ba mu am ba ma am ci ndigalam kon looloo ma gën a yokk fit nii tey ma daal di taxaw nga gën ci xuus eh, da ngeen ubbi groupe whatsapp yéen classe yi di ci waxtaan lan ngeen defagun lan moo nekkoon pour le moment seen seen plan d' action waaw suñu plan d' action actuellement